a jommi wala dem eh dafa ñu damay bëgg jommi wala damay bëgg a waar kii bintu la bintu la sax de bintu yow fi def damaa wartu ñëw sama kër bàjjan yaam bintu yàgg naa ci kër gi te mosumaa gis sab tànk dëgg fi wax ma rek loo fi wut koy seet Ablaye laay seet Ablaye man lenn hee lopp dalooti na bintu nag fuy nga xamul sa bopp ana Ablaye sax moom dem na boutique ba daa wuti boisson <laughs> kaw téef dem na boutique ba daa wuti boisson ndeysaan ak osé gi ku koy jox yow pour nga naan ko mukk du fi reese bintu nag xamoo sa bopp waaye tey laa ngay wax sa bopp bintu fuy nga réew nga yabaate nga soof nga ma nag <laughs> bu fekkee dangaa tëgal sa bopp tam-tamal ko mu des gan nga ne danga koy essayé ci Ablaay nax nga sa bopp xam nga lan laa bëgg nga ni ñokket topp sama baaraam bi bala maa yëngu yaa ngi may dégg ma ne nga dugg génn caqaj bëgg nga góor ñime nga sa fit wu rëy maa la bañ ak sa ndey kër gi bintu bintu sama kër gi ah ma de bintu dafa mel ni doomu bàjjenam tànka mosu ko fee dëgg di dangay laaj wala dangaa bëgg a xam moo dee laaj rek ma la bintu doo bàjjenam mais yow loo séq ak bintu séqu leen dara gëj ngeen ci adama ak awa doo daraam bokku leen tus sa wax ji ñaaw ma wax ji bàyyi ko bintu dëgg la duma bàjjenam waaye yaat ma da ko boole ci njabootam da koo def comme doomam kay sa wax jooju na de gis nga bintu bu fekkee Ablaye la luqati bëtam bii ne ko ci teg hmm. eh ruux la pont bintu ñeme na dëgër na bët ñeme gi ci ndayam ak dëgër bët gi ci ndayam ak fit gi ci ndayam lépp ngi ci bintu man lay ut nag waaye dina ma am gone googu de boo sama raw bu ndayam xale bintu boobu bët gi ci moom dina ma am bu yeboo nag mu teggi teg ko ci suuf ndax du ko am Ablaye du pour moom lu leer laa la wax. Ablaye da kaa xoolu sax na bët ni ko xale boobu rek laa euh, ne war nga koo dépassé daal. comme non non am na yoo xam ne war nga koo dépassé taxawaayu mbedd kilifa da koy moytu. amna ci yo xamni bo ci nekké da ngay dox ak sa tank forata la waye kar kar kar kar lu xew ak fi ma woo. bi ma la mairie la jogi di ñew bobu du tassé avant may ak kër ga. wa mais ci mairie bi nga may wo woo. boobu boobu ñu ak kër ga dama la bëgg wax fi li lay wax rek yow tamit nak wa wa wa lan nga may doy. xoolal gis nga man wo bu ma la mësa wo hmm. wo bi bii moom ci gëna ñor. c'est que xam nga yow lan moy sa problème da nga bari plaignant de nga li ma la gis nga man xoolal man ma bayyi intermédiaire ci yenn yi bu dé da nga sacc wax moko man man duma ci sori ak yow bude da nga def di ah yang yu kenn xamul ak say yi non non bu mu ci duggal wax ma rek lu leer. yow xam nga yi wax yeb dara du ci sama mbir. ah non non man man fi mu pele yow da nga ah bëri pele ñaa wa wa wa defal naa nitu pele ñaa nga. ah. man dama la wo ngir nga dimbali ma. dama bëgg nga jappale ma. ah nu ma lay jappale ci la lan la lay jàpp dama xam. xam nga yow sama way nga. yow koñ bi ñepp xam nañ la. ah ba tax na li ma bëgg damaa bëgg dimbali ma rek jàppale ma. waaw waaye di xool li ngay ko wii rek ah li ngay lem lemal damaa nga jàppale ma eh, eh, eh, xoolal man li ma la bëgg a wax mooy mu leer nga dem droit bi nga wax ma focus ci li ngay wax. Ah, xam nga xam nga élection délégué de quartier mi ngi waaj a ñëw. Hmm. ma bëggoon nga a suuli. <laughs> yi bu dee waaj ñëw man léegi lan nga bëgg ma jàppale ko nan nan. waaw xam nga li tax ma bëgg nga dimbali ma. Hmm. mooy dafa am ay liste de parrainage ba bëggoon nga jappalé ma ci nak ci liste yi. dañ leen laaj ay liste de parrainage. waaw manam comme nga am ay nit. remplir seen carte yi waaw kay waaw. ok pour nga nek yow euh, président chef de quartier waaw kay mu bok d' comprendre comprendre naa léegi yow. Mm. Euh, li mm. yow ay liste parrainage nga wax de. waaw euh man na xamal lan moo tax li duma ko man mm. mooy tax ma bëgg ndëgg sërëx. yalla téré Je xam nga ne waa koñ bi confiance la amatuñ ci confiance nga bëgg le peuple bi. eh, de. suis purple peuple bi kenn du ma jaxaseeg peuple bi. du de. peuple bi bëgg kenn du ma peuple say nga ko si ah. wax <laughs> Bintu de bu Ablaye tax muy jël ay di lay eh pont. ma de Bintu di ko ci ndeyam ñëpp ngi ci moom. ñeme maa yéen ngi si jàmm. alhamdulilah. yaa bu baax. waaw dëgg la dëgg mm-hmm. nag dama fi génnoon dem voyage bu mm-hmm. waaw village laa demoon. waaw. mooy bay ma woon dem village doo taw dangay jékki-jékki rek ni pomette ni lay village. xëy rek dama Sophie moo ma woolu woon ni daf ma soxla lu urgent te bëggul woon kenn xam ko moo taxoon ma dem mais du dara. waa xale yi ci famille bi ñoom ñoom ñooy résidé. demeewul noonu nag sama mag ja yaat ma biram ko di joo dafa ma yàgg wax ni ma xale yi njabootu kinaara na dañuy dem rek nga topp seen ginnaaw jiital leen loolu kese la mais du leneen. femme dafa am benn moodu moodu buy bëgganteeg Sophie. loolu bi mu amee ba léegi waxoo ma ko ngeen ma koy nëbb hmm. dafa am moodu moodu buy bëgganteeg Sophie waaw waaye man bëgguma ko tey bëgguma ko ëllëg ginnaaw ba waxi nopp ndax gor benn tànk la jaam xaraa ba tanjaay la waaw ñaaw na ma si gémmiñ sa yoon nekku ci baal loolu astoor kenn du ko xas yàlla la sàkk sàkk ko mm-hmm. te julit la ngay julit nit kenn duko xass lolu baaxul baal loolu. gis nga Sophie ablay lañ ko dencal lolu defena ni booy na wakni, nopp te duma ko wax lima wax ni duma ci wat man man yow nga tëgal ma sa yemi ñew yag na leena wax di keur ñobel gi ku mandar sama dar mhm. li ma wax nak man fam dar du ci teggee rek <laughs> la am. deug la deug na li nga wax. moom la sama mag ji yàgg a wax te loolu du nga si musu jug ginnaaw la may topp ay waxam ba léegi Kumba Ndar Samba Ndar loolu mooy yàgg am te mooy musa am leen rek laa leen di ñaan may leen ma ñetti fan ma xalaat ci waxtaan ak Ablaay ba xam wànneen fan lay mu ki bëtam lii rek mën na am jàmmal yow wóor na lu baax lay def ah mais lu nga sa bopp defal ndànk rek dafa am loo xam ne nii il faut nit doxal la ko hmm. ndax président ministre rek parti opposant yëpp yaa ngi gis kenn ku ne mi ngi yor ay liste de parrainage am te ay nit la ko jox pour ñu dem doxal ko lool looloo tax ma taamu la hmm. ne yow mii da ngay sama nit hmm. looloo tax ma bëgg rek nga wutal ma ay léegi damaa bëgg léegi lii mun naa ko waaw jeexal wax ci mun naa ko waaye dafa am nu yi demee hmm. bu fekkee yor nga koppar ma defal loko ko tur wu bopp bu ne ñaar téeméer ah waaw loolu moom day bari lan loolu day bari bopp xam nga lu si liste parrainage xam na jël carte d'identité waaw nga joxe ma benn liste bu ne taw waaw loolu daa bari dafa bari léegi defal ma ko benn liste bu ne cinq cent eh, xoolal wuy ma xamul lu ñuy def demal soel ma dem soel parce que xoolal wuy ma non non non non respecté naa trop je te respecte mais du ma la wax ay liste parrainage nga ma koy jaayee benn ay ay ay téeméer waay ah xanaa man bëgguma dara waaw defal ma ko benn non non non non euh, cinquante nga soxla cinquante mille la jox ma ma lijjanti ko mënoo ko anyway waaye waaw garaaw loolu du problème ah loolu du problème yow fexeel ba mu am cinquante. non non cinquante kay dara ci ah, ah, man. waaw waaw man géwal communicateur. waxkat bi ah. ay san waay waxkat bi. wuy ma <laughs> ah. bëgguma problème du am. dajaleel ma samay fukki junni. sooy ñëw bu liste bi mat booy ñëw ma la yëkk sa fukki junni la ko jox. demal jeex na. wuy ma bul fàtte bele ah bëgguma problème de. du am problème du am problème ah. <laughs> kon baax na. baax na. ñuy def ak yére mboqat bi mu naan ay liste parrainage yow ku lay voté ki ku koy xool di ko jox suñu suñu président suñu président des chefs de quartier yow nga xam dóorkat nga bëgg nga jigéen yàqu nga caaga nga yow défaut yi ci yow bari na nga ne ñu jox la suñu liste parrainage <laughs> samay tur laay dajale lu ma neex di bind di lamprix après ma ñëw jaay la ko loo ko jëlee loo ko jëlee baax لي بقى وحدي والله سوما لو كو خي سخنا مري غبنا ندوما غم كيفاش سام بعد واخو ميراث نغا بقى وخ يا مري من واخي ميراث بما تي صح واخا تول بين ياكار يو تا دوخ تي واخ ميراث مي اك يو نير ميراث بي تول وون مي سام ما ياكارون نه موم بو نيوي دينا كو لجنت موم دا تي ديغاجي اي ريسبونسابيلتي ما خاص تي لوخم ba mu man bay boo ma raay sama jë rek. man de xaw ma da ngay raay sa jë waaye xaw ma raayoo sa jë miraas moom dañ koy def ci nii mbaa ci naa ndax bu kilifa génnee àddina gone gu ndaw sax bu génnee àddina faw ñu miraas ko rawatina nag kilifa ko toll ni yat mbiram ko du jóg. Euh, ayaa ma rek man de wax dëgg yàlla lii sax taxul ma woo la tey ci fajar gi damaa gis lu ma yéem. ma wër a wër a wër ba sonn ma ne ma dugg ci néegu xale jigéen ñi xool. bul yóbbu sama fit wi lan la lu xew. Hmm. lu doy waar. yow lan moo lu ak fan nga ko gisee. ci néegu mu birim ko du jóg moo goree di. moo fote taxas benn boor may sung fu njëlu këram amul lu muy def amul ku muy dugg néegam di fa feeñu du dugg sa néeg ak néegu xale yi man mu romb ma fi teg ma ni yàq bu naqari waaye nag baax na. yow jàmbaram li wax ni yow. nga dégg laay wax. waaye nit nga. su ma koy nit lan laa daanelaguma sax nga këf sama wax daal di koy yeggale lii laa la bëgg a wax est-ce que yow fii ma wax la nag man yaa ngi may bëgg a jaaxale xàmmeetu ma la de. kon yow woote bi ngay woote na man sa rakk laa fu mu ne. loolu la sama rakk nag li nga wax rek wax moom tontu rek lay laaj. yaat ma tey am na droit ñëw feeñu ma bu ko neexee loolu dafa am problème. balaa a a feeñu ndax maa la jiitu ci kër gi. loolu du wax Adja Marème loolu du wax soxna woon nga man doon soxna kon tey jii bu ko neexee fu ne mu dem feeñu fa ku ko neex gis nga génnal ci lii man loolu taxul ba tey may wax ak yow. ndax man gisuma yaat ma gisaanuma yaat ma. waaye nag yaa ngi may bëgg a bëgg a wax a bopp nag. waxal li nga bëgg a wax ah, wax wax waxal li nga bëgg wax man bu ma tiital di yóbbu sama fit bi waxal li nga bëgg a wax. bu diis bi mooy sama kol bu diis bi xam nga fan dafa ngelaw maa dama koo génne woon teg ko ci sama bopp lal noonu kol gi daal ne menteng ne mes ma wër a wër a wër ba sonn gisuma ma ne xaaral ma dugg néegu xale yi man daal bi ma duggee ubbi bunt bi ne yóot yem ci bintu waaw bintu de laa fekk mu sàngoo kol gi tëdd ci si yàlla ah. bi mu doon jullee xam naa ne dafa fanaanee naafila ba bët set ma ubbi rek yem ci moom muy nelaw. yow Fatou Samb ni nga yóbboo sama fit bi pour lan la sama tension bi bu montee ba ma kiris loo may loo di nga may wax jàmm maa ngi nga ma yóbbu jàmm. bintu bu muuroo sa kol gii di julli wala mu fanaanee fajar di julli xaaju guddi ba fajar gi xar loolu war la warulaa tiital warulaa jaaxal doomu yaat ma biram ko du jóob surtout biram ko du dëkk sa kër yi Samba yàqin jóob bu defee loolu loolu waru laa jaaxal yow Far Samb ndax nag wat sa watees maa la ko wax ndax baayam moo doon aalimu alxuraan tundu waaw kër Samba Rakin ba dikk si tundu gii di Cees gii li ko wër kon loolu waru laa jaaxal yow lay jaaxal waaye man de jaaxaluma bintu dafa def li ko war rek. waxuma jatu bintu laa wax. ah jatu waaw damaa tiit. bintu laa wax ba tey waxuma jatu dem bintu laa wax. waaw man damaa bu dee bintu nag damaa tiit bintu moom xëy na nit day soppeeku nit nag bu demee ba gis nga nag. nit bu awee yoonam di daw di daw ba xamatul fu mu jëm ba wàññeekoo day fekk dafa war a wàññeeku rek. bintu mën naa ne bintu ndax xanaa xamoon nit ki jonjoo jonjoo dina changer nit nit boo amee jikko boo jonjoog nit lu yàgg mën na laa changer deret sax mën naa ñëw di duggante di waaw waaw loolu du dara loolu du dara ay waxin la rek du dara boo dëkkee ci kër fekk kër ga ñëpp di fërërëri di naaw yow boo tëddee nelaw te naawoo yàq nga ko. dangaa nga wara naw hmm. dama ne hmm. yow li nga wara ñaan yalla moy li nga am tay da nga ci wara ñaan yalla yaat ma biram ko jóg ku ne ci kërëm bay yalla soppi la nga wara ñaan yalla yow mi sa da nga wara soppi faat kamb bay ma man way ki def may la jël way di ma détaillé problème ah lii mu droit gis dara wax ko ci kër gi kër gi daal la ngi bëgg bi waaye nee naa la yow yaa ndax lu tax nga nekk à l'aise liggéey ba ca sa maam loo ca sa ndax sa li communicateur yi naan di yuuxu naan la waaye yow mii sa gaynde la woon jàmbaar la woon à l'époque ma lu mus ta dégg ah. xam nga ni sa maam mus naa nokk sama bopp yé sama maama ko dóoroon kalpe yow ñun dañ daan sàcc eh non non non non kii ku ne nag la nga nekk feer ca ñun ay sàcc lañ woon mbal na yàlla dogal nii rek ma bàyyi nii rek yore di wax xam nga sàcc ak wax na ñoo ànd ndax sàcc lay sàcc daw génn ci mbedd mooy ñi ko yuux sàcc di daw looloo tax doo comprendre nu mel man ci sàcc laa la juddu. ndax damaa tuub tuubeen laa. dégg nga lii léegi fi mu toll nii <laughs> ah. hmm. nañ la trop. mais damaa xamul yow nga mën a toogee diir bu toll nii ñëw ci suñu kër gi seetoo ñu xooloo ñu xamoo ci lu ñu ne. déglu ma juum nga yow xëy suba ba jant bi soo kër yaat ma gii du nekk sama xel. Ah, waaye ñëw ah nekk ci dëkk bi génn wi rek. waaye xam ngeen yow fii nii aw lu dul fii man aw ma lu sut fii hmm. man fii laa am ah, yow kër gi def naa fi lu ne man kër gi rek laa miin <laughs> xam nga ni kër gi ma dugg sama génn ak sama xawar xawar lu ne loolu xaj na fu ne. dëgg la yaa ngi fàttaliku sama ñambaleel fii rek laa xalaat. man fi rek la am liberté fëx fëxaat dug ci duus gennat fi la am xol wañ bi bolu dof dor mu jeex <laughs> ah fi <laughs> la am fek mbërëm moom yow keur ga muraaxe xoto xal ma jox xari yi ni man ni lolé ma deseel wa mais tay mom da nga ñëwee lo mom tay mom yëngatu woo mom non lo xam nga boo déggee nu ndax yëngatu ma mooy da nga tàmm ñëw te tebi table ko wi ñaaro ko def keen xamut est-ce que yaa dégg te te fi te fu toll sédday bi sama yaram bi da fett ma didim ci biir keroog ah. didim ba dal tool ni daa sedd dama didim ma yenn mouvement yi sax maa ngi dagg te yëguma ko <laughs> dimbali ma nga yenn yenn ambiance bi <laughs> yank kontaan naa de bi ma dalee wax ba tey nouvelle bu dàq lii man mosoo ma koo wax man bokk nga ci ñi ko njëkk a yëg waaw waaw sa yaay sama yaay de moo bàjjalam faama dañoo génn dinaa wax moo xam naa liggéeyi na ca fajar la xëy damaa kontaan gis nga bi ma gisee appelu banque bi. damaa fëx. Ah. non yenn situation yi sax surtout nga mën di ko décanté. loolu laa la doon bëgg wax. na góor góorgóorlu bàyyi sa naajee yeewu gi. teel a préparé wu sañ sama jékk dem yaa ma gën a xam xëy. daal di def chemise. pantalon. man mii naa yoo ji yow. bul ko arrêté de. cum ah. waaye sama xarit baaba la de. maa mën a yàq waxtaan nag. gis naa kaa dégg depuis boobu ba ma la nee dem na voyage ba léegi. ah ba léegi nii may xëyoon nii dégguma ko. sama xew nag sama taalam amoo saas de. bul waxati loolu kat. li demoon dikkaat na. yow amoo saas. man taala mere ki ma ko mere. nga naa ma ay waxi taala baal waxi taala. tollu ñu yooyu fi mu nii lii mooy wax ji. damaa kontaan tey tollu ma ay taal tollu ma baaba la xëy rek. waaw ndaw ku bari tiitar gàddu sa saak ba def sa ciib ciib dugg nag bonjour ah bonjour ah, bukki am na almet tey dëkk bi léegi nga laqale nga di ciikar ciikar ah, tey noo dikkee nii mete kuy jàng lii ma ne nii waaw nga yor say fëy sa big loo xam kon ni réew maa ngi toj

suñu Sénégal gi développé na te ñu ñi yëgaguñ ko. ndax buñ demee ba chef de quartier di defar ay liste parrainage ngeen war a xam ne réew mi changé na. ah changé na ko changé na. parce que yii nii dañ lay laaj cinquante sa gox cinquante rek la ñu ci laaj. Mhm. buñ buñ leen votalee jox la sa candidat kon nga xam ne yow mii sa am nga fa baat. dëgg la mais chef de quartier am dix personnes ci sa koñ xuloo waa bi yëpp kooku doo nekk njiitu chef de quartier yëpp. dëgg syndicat bu jug rek nga ni en ah, plainte rek teg du zéro deux cent la jangal ma mille franc la loolu loolu kooku dañ la votel kenn du la votel trian la parce qu'on a na le yoo du ne il dóor syndicat yu nga xam yenn koñ ñu dóor man maa leen di yore am nga fi de comme nous dañuy fal suñu chef de quartier moom am amul ku dul moom ma ni xaar ma ñëw fii parce que fii fii sama famille la mhm. kon ma ni xaaral ma indi leen liste mhm. ngeen rempliral ma mhm. ngeen jàppalee ko sama chef de quartier waaw ah. yow de xam nga ne loo bëgg ci suñu kër gi da nga koy am su ma yéegee léegi wax ak soxna Marème ah, mu jox ma carte d'identité ñi ci des duma leen sax laaj dama yëkkati seen carte d'identité yëkkati ñoo jox la waxal ak ah moom lu ma wax loolu la wax. xaw moom lii lépp moom lii lépp moom. waaw loolu da la mel ni dina bu ndoxatal ak liggéey. waaw waaw mënoon na la ne liggéey la yàq sa àdduna nga dof di wër ci mbedd yi mais dafa baax. ku baax la hmm, jàppalante leen. incha allah jàpp loolu leen jàppalante doyul donc seen borom kër dëddu na hmm. waaye nag gis nga àdduna nii la. Hmm. dëddu na jooyu leen fii miiras ay kër fa ñuy coow kër yi miiras yi bari na yàqante bi nit ñi di génn àdduna ñuy liggéey ndax kër te jaru ko. yaa ngi dégg ànd bu rafet bii ngeen àndee yàlla na yàlla defal jàmm wuyu ma nag ah, ah. amal jëkk ah loolu ah, nga gis ah yaa ngi toog toogaa baa ngi bëgg a yàgg fexe am benn jëkkër kiituma daal déedéet déedéet yaa ngi jongo ma ba tey même boo demee ba dem ba wër ba wër ba wër xoolal sax ko xaw a nduróog man nga jël ci <laughs> waree ma war ma mënatoo. waaw tey nooy génnee nag nooy ah, génnee nooy génnee nag. waaw bu yàgg. waaw benn benn courant xam nga bii bii benn xor benn taagu benn taagu bi rek wóor benn taagu benn taagu benn taagu benn taagu xoolal. tàngoo ko ko. yónnee ma dara nag. maa ngi koy envoyé léegi. ah yow na sa xol fenn. man nag damaa sonn gëj naa am. Ah, maa ngi nii di la ko yónnee si laa ne gëj naa woyaan. maa ngi lay yónnee. dafa li ma ah. ah Sinônico. Filha, selama Pois é No sofá. Moustapha ngay seet nii nga def de doomu nit ku yiw de nii lay def ndax boo nee do commandant Thioré sama baay dangaa war a am carte d'identité te sa baay nekk ci réew mi yore sécurité dëkk bi ah di seet ñu jubul mu dem tëj leen ñu jubbanti leen ku yàq mu jubbanti la doom bu melee dëngee ni sartu du yoon dëgg sa baay sa image dangaa war a lii nga def nii continuer ne ko di sol lii waaw yaa ngi dégg Moustapha nag ngay seet ma bëgg a xam ndax yow waaw waaw Moustapha ci boppam laa bëgg a xam lan nga koy doyee ndax nag jigéen ñaa ngi ñëw ci kër gi di dugg di génn waaye ku fi dikk rek wut gàllaaj wala nga wut reen wala nga wut muslaay moo la indi ci kër gi naam ñi ngi jaabante dugg waaye yow sa dëkkin bii moom laa bëgg a xam te nag làmmiñ ci nettali ci làmmiñ ñu borom la la gën a ma aay wax ma ma dégg lan ngay doyee Moustapha. maanaam Moustapha. an war naa jóg sax jàppiwaat. Aram. waaw maa waxoon Kumba mu woo damaa am benn mara ma war a seet bu tudd sëriñ maam Thion. bëggoon nga gungee ma fi. sama bàjjan sax laa waroon àndal. mais bi ma ko ko waxee dana bërit ne ma kooku bu mu fi teg tànkam ma laaj ko lu tax mu ne seen ay rawaan jubóowul moo tax ma ne naa la woo nga gungee ma mati yow loo hmm? fanta daal moo am benn xale bu góor bu muy bëgganteel mu tudd Moustapha ma wax ba sonn xale bi tëma tëcc ne moom rek baa mu dee. yow lii nga ma wax ni daa mel ni Kumba wax na ma lu mel noonu ne ma Fanta day bëggante ku ñuy wax Moustapha yow nga ne ñettu ci dal gis nga Kumba bu ñëwoon indil ma koo xamante ni xaw ma fu mu jógee su ñëwee dama ko koy may. nii nga jógtee de xamal ne sa yaay kontaan na ci yow nii ngay def di julli waxtu du la raw. ngay toog di wird di sellal ah, te nag ma wax la leen gis nga jatu mee sa mag la waaye sa sa nawle la lu muy def nii nga tooge ci kër gi waxtu du la raw nga yiw jaamu yàlla lii ngay sol sax aayut ah nga sol rek bu yaatu ba ba nga xam ne sa sa sa yaram wi du ne kepp mbaa sa yaram wi ñu koy gis lu dëgg continuer ko man kontaan naa ci yow te nag xam naa dinaa la neexal sax nag li was wax dëgg la ndax tegu ci yoonu jub mm. xam naa ne mooy tax sama pàpp fee mu tëdd mu tàlli mm-hmm. yow sax li may def nii gëm nga ko waaye sama yaay dafa foog ni damay théâtre xanaa kay nga wax ak moom rek xëy na moom dina gëm ni changé naa sa yaay sa yaay day warta théâtre ndax gis nga théâtre métier jàmbur la te muy métier mu noobul tam ndax nag li tailleur bi amee métier ah mason bi am métier te euh, kii di nga xam ne mooy avocat beeg euh, policier beeg ñooñ am métier noonu la théâtre nekkee métier àddina bi nag léegi dañoo commencé di leen tooñ bu nit defee lu ma tadi ñu ne day théâtre rek bu nit nekkee di di di di fo ñu ne day théâtre rek yaa ngi dégg sa yaay nag ah pour mu gën a xam ne yow yaa ngi ci mooy sax ci dàq rek sax ci dàq nga góor góorlu foo góor góorloo dina xam ne yow mii de doo so soppeekuloo fa nga nekkoon fa nga teg sa tànk yaa ngi dégg looloo gën mu nit ku yiw day yiw di doxal jàmm waaw man de sama yaay am na lu ma ko bëggoon laaj waaye damay def ba may bañ bu ma ko laajee mu gis ci boppam loolu lu mu doon laaj ma ko waaw ah, moom lan mo tax du dem sama bàmmeelu papa bi di ziaru diko di comme ni koy defee sa su lan ngay bañ ci digënté bobu mustafa doomu yaat ma biram ko du job la la mustafa doomu yat ma biram ko du job la wayo xana waxo xalé dara aram loolu duma ko wax mag waxatuma laa xale nga xam nga ne boobu diggante mënul nekk déedéet ci àddina mënta ne yi yow de sama doomu ndey nga xamul ni loo ne ma acca damay jóg ànd ak yow ah xanaa ñu dem ma gunge la rekk d'accord ma jël sama saag ay nopp daloo dina sa yaay lii nga wax